ñu gën ko leeral ci audio rek ba tey ñu wax it moom it maanaam daa proposé Baye Mbaye cinq cinq cent millions cinq cent millions la yàlla proposé Baye Mbaye cinq cent millions proposé na ko Baye Mbaye MC pour maanaam mu bañ mu bañ a teg audio aji saar bi waaw sëriñ bi bañ Baye Mbaye MC daa daal di bañ waaw ne moom kooku yooyu tamit kooku yooyu borom jom la borom diine la waaw la Fatimata Fuuta Tampi waxoon ca moom nag moo ko topp ba Fatimata Fuuta Tampi alku nii fi mu ne di yalwaan la Fatimata Fuuta Tampi waxoon ca Baye Mbaye em si moo topp Fatimata Fuuta Tampi ba mu alku nii di yalwaan waaw waaye seex Alassane Sène it juum na torop torop torop torop wax dëgg yàlla man nit du taxaw wax Baye ku bokk ci Baye Ñas lu lu lu mel nii torox may wëlbatiku di la dindi ca torox tega mënoo ko cee dindi ndax boo ko joxoon 10 millions it day torox rek kuy torox képp la kuy torox kenn mënu koo dimbali. ah kon maanaam ma nga ca àll ba di euh, di lii daa tuuti daa waroon a yokk c'est un milliard sax bu ko tegoon Baye Mbaye MC du nangu de un milliard bu ko tegoon Baye Mbaye MC du nangu waaw